Euh, jërë ngeen jëf mbokki internet yu 313 digital ñu ngi leen di nuyu bu baax amaat mbégte ak contentement dellu si ak yéen ci seen actu du jour euh, tey nag dañuy dellu si ci euh, oni di organisation des nations unies bi xëy rek di vilipande ki nga xam ne moom président Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci almaami Abdoul Demba Tall moom mi daal di poste rek xam ni lan moo tax moom kii di président Macky Sall kon révélé wul tey si soir audience bi nga xam ni kon benn audience privée boo xam ni def na ko avec le secrétaire général bu l'ONU eh, di Antonio eh, Guterres fële ca Addis Abeba moom mi di président Macky Sall nag loolee cell ceera cell cellaar la ci am moom ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay eh, journalistes yi nga xam ni rek ñoom la àndaloon parce que ki nga xam ni moom moo di Antonio Guterres def ko exposé kon illégalité ba nga xam ni yëpp mi ngi koy def ci kaw ki nga xam ni moom moo di Ousmane Sonko di njiital Pastef nekk itam chef de l'opposition fii ci Sénégal ndax moom mi la di Antonio ñu Guterres kon dellusiwaat na ci euh, jëf ju ñaaw ji nga xam ni teg na ko ci Ousmane Sonko fan yi ñu weesu muy otoom bi nga xam ni toj nañu ko daal di koy extraire dugal ko ñoom waa gendarmerie bip kon ci seen oto ga nga xam ni rek ci lañ ko daal di déposé fële nga xam ni moom moo di euh, këram di euh, Ousmane Sonko ak itam bien yoom yi nga xam ne ñu ngi koy yàq sauvagement ak des agressions contre sa famille ak ay alliés yi nga xam ni ndeke moom kii di secrétaire général bu oni lépp moom mi ngi ci teg euh, li nga xam ni euh, moom moo di euh, ay gëtëm ba tax sax mi ngi dellu siwaat ci cent trente et un détenus cent trente deux sax la ñu bind nga xam ni Guy Marius Sagna kon doon na ko liste fan yi ñu weesu moom mi la di Antonio Guterres nekk secrétaire général bu l'ONU dikkaat na ci ni kii di président Macky Sall kon ñooñu nga tëj tollu ci cent trente deux te politique rek tax kon kii di Antonio Guterres loolu yëpp kon moom nekk mi ngi ko ngankoon denc ko ndax bu leen fàttali nekk ni mbokki internet di benn rapport d'état américain dafa dikkoon fësal kon ni événement mars yi ña nga xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan dañu leen rey ci turu gouvernement bi wala ñu rey leen ci euh, gouvernement bi moo leen rey wala ñu rey leen ci turu gouvernement bi ba tax loolee yëpp kon nar na jur musiba ak mbelengaan bu rëy rey ci ki nga xam ni moom moo di kii di président Macky Sall ba tax loolee nag gannaaw boobile audience moom mi di président Macky Sall ñi ak ay journalistam amuñu nañu loo xam ni euh, fësal euh, nañu ko ndax euh, loni kon dafa rek daa di am benn ay gët ak xool bu ouvert ci li nga xam ni moom moo di Sénégal ak jàmmam gi nga xam ni rek yitteel na ko jamono ji lool lool ñoom ñi nga xam ni ñoom ñoo di ONU eh, ci eh, seen njiit di eh, Antonio Guterres di kon li nga xam ne moom moo di secrétaire général bi loole nag lañu ñu rek kii di almaami Abdoul dembatal Tall daal di xamal mbokki internaute di 313 digital ñu yemoo ki fi ñu daane suñu ay kaddu mu doon loo xam ne nag dañ leen ko gën a toppal bu jaree ñu gën a dellu si gëm ko faram fàccee danañu ko def fii ci 313 digital ngeen wéy di abonné di bës ci cloche de notification bi ndax ngeen di mën a jot suñu ay programme yu ñuy dugal jërë ngeen jëf